ndaw du xëccoog mag su mag ñëwee ndaw foog mu bàyyil mag loolu suñ problème la waaye su fekkee ne ndaw yi may nañ leen doole boo xamante ni ñu ngi si place yi di nga gis ne loolu dina leen may ñoom it doole ak gëm seen bopp mun a taxaw nga gis ne boobu aada du leen tënkati waaye suñ problème mooy mayuñ leen yoon te ba pare aada daf leen dee tënk su ma waree taxaw sax maag mag ñuy xëccoo mbir de naan ma dafa yara deku comme loolu moom suñ gëm